wa salaasuna ak ñett fukk aayatan ci kawteef de bismillaahi sos na wax ci turi buur arrahmaani buur bay aj yaram mboolem bi daafoon ci àddina kay aj yaram mboolem jullit ëllëg ci àllaaxira de xaamim xaamim laaw yàlla alam mooy aji bi muraadi ci lum nam bi ci moom de tanzilul kitaabi wasala téere la te mooy alquran minallahi tukkee ko fa yàlla de al azizi yàlla muy aji not ci nguuram al hakimi yàlla muy aji xereñ ci njëfteefam de ah al quran ji nag ci yàlla la jugee yàlla mi nga xam ne moom mooy ki nga xam ne mooy ku xereñ de du teg ngir mukk lu dul ci barab bi nga ko war a teg la ko war a teg de maa xalaq naa binduñu asamawaati asamaani juróom-ñaar wal ardi ak suufi juróom-ñaar wa ma baynahuma ak li ci diggante seen illa bil xaqi ndere ci dëgg de wa ak dig ak dig musamman bari buñ tudd de te mooy jeexam de yàlla nag nee na bindul asamaan seeg suuf si ak li ci diggante bi yëpp muy ngelaw leeg sedd beeg li ci diggante bi yëpp ak li ci dox bàyyi ma yëpp bindul leen lu dul ci dëgg de ñoom ñëpp bind na leen heure bu seen dig jotee nag dana jeex de heure boo xamee ne ah pencam yàlla pencam yàlla taxaw na yàlla dootul soxlaat asamaan si de dootul soxla suuf dootul soxla suuf si ndax asamaan seeg suuf si yëpp lu tax mu bind ko mooy doomu aadama ñoom la ko bindal de buñ demee nag ba jeex takk yàlla dana fi jëlee asamaan diggante ak suuf si de moo tax mu ne bindul leen lu dul ci dëgg rek moo tax mu bind leen de wallazina ña nga xam ne kafaru weddi nañ moore doona way dëddu lañ amma unziru la def na waar leen ko de ñi nga xam ne nag ñoom dañoo weddi yàlla alquran ji nga xam ne moom la leen yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ñoom dañ koo weddi de qul waxal araaytum solo si leen ma maa tad'uuna la da ngeen jaamu ko min duunillaahi du dul yàlla aruni wan leen ma maasaa xalaqu ana lan lañ bind minal ardi ci suuf am lahum am ñeel na leen shirkun bokkaale def bokkaale fi samaawaati ci asamaani juróom-ñaar ànd ak yàlla de yéen nag xërëm yii ngeen di jaamu wax leen ma ñoom lan lañ bind ci suuf si de lan lañ bind lan leen dara rek ngeen ne lii xërëm yi ñoo ko bind xërëm yi binduñ dara de wala ndax ñoom ba yàlla di bind asamaan si dañ koo dimbale wala dara wax leen de ittuuni dikkee leen bi kitaabin ci téere min qabli haada njëkk njëkk la alquran aw asaaratin iki jeexit min ilmin ci xam-xam de indil leen ma lay su fekkee ne dafa am téere boo xam ne dafa ñëwoon jiitu alquran wax leen ne leen yàlla ba muy bindee asamaan si xërëm yi daf ko dañ koo dimbalee wala xërëm yi am na luñ bind indi leen téere boobu ngeen wax ma ngeen wax ma ko waaye mënuñ koo indi wax na leen ci xel ci laajam xel tegtal boo xam ne ci xel lay jugee indi wuñ ko indi wuñ ko laaj na leen tegtal boo xam ne téere wala jeexit boo xam ne ci deset yu njëkk ña la bokkoon ci xam-xam buy wane ne ah, ah, ah, xërëm yi bind nañ ci mbindeef yi dara indi leen ko de waaye indi wuñ ko de mënuñ koo indi ndax xerem yi binduñ dara amul benn téere boo xam ne jiitu na alxuraan boo wax ne xerem dañ ko dañ leen a war a jaamu de in kuntum dem nekk ngeen saadiqina di way dëggal ci li ngeen wax noonu su fekkee dëggale indi leen loolu ma wax leen de ngeen indi téere bu jiitu alxuraan wax ne xerem yi dañ leen a war a jaamu wala ngeen indi jeexit de waman waman adallu déet kenn di gën a réer mm. mi man mi man yadoo mi man yadoo ka ka wootee nga ka jaamu na min duni laay du dul yàlla de man laa yastajibu loo xam ne déeful uy lawu ñeel ba pencam yàlla kenn du gën a tooñ nag ci nit ñi kenn gën te ci nit ñi lu dul koo xam ne dafay sàkkal yàlla bokkaale de di jaamu jeneen yàlla ju dul yàlla loolu képp ku koy def rek yow yàgg gën tooñ de ngay uyu koo xam ne ngay oo koo xam ne du la uyu boo ko doon oo ba péncam yàlla du la uyu kon nag koo dëgg-dëgg koo jarul jaamu de woom ñoom xaafiluuna way sàggan nañu an duaayim ci jaamu seen wala walis jaamu seen de ñoom jaamu yi ngi leen di jaamu ñoom sàggane yëguñ sax ne ñoom yi nag leen di jaamu de wax nañ ko maakaanu iyaanaa yaabudun bañ demee péncam yàlla yàlla wax xeremi ne leen yéen xeremi mu ngi yéeféer yi doon jaamu ñu ne maakaanu yaa naa yaabudun de ñun ñii mosu ñee jaamu buur wa ida oshira ndem pangeef na annaasu ñi ñi kaanu nekk aada andi noonu la hum ñeen leen ci béncam yàlla de wa kaanu tañ nekk kaafirina di way weddi bi ibadatihim ci jaamu seen de yàlla na ee bu pangee ni ñëpp mu pang leen yóbbu leen ca pénc ma ca àllaaxira yóbbu leen ñoom ñëpp pang yóbbu leen dajaleen ñi ñépp mu pang leen yóbbu leen àllaaxira ca péncam yàlla keroog ñoom ñoo xerem yi dañeen daneen noonoo de ndax xerem yi dañu wax na ñin a yéen mosu leen a mosoo leen ñee jaamu de yàlla nag jël leen ñoom ak xerem yépp dugal leen biir safara moo tax xerem yi nekk seen noon ndax dañu xerem yi dañ leen wax ne leen yéen lu tax ñu dugg safara yi seen sabab moo tax ñu dugg ñu dugg safara de ndax yéen ñoo jën di ñu yette di ñu jaamu bañ tey ñu dugg ak yéen safara de euh, jaamu gi ngeen ñu jaamu yéen mosul leen a jaamu weddi de moo tax buur ne wakaanu nekk nañ kaafiri wakaanu nekkoon kaafiri ne di way weddi bi ibadatihim ci jaamu seen de wa iza tutla ndem jàng nañu alayhim ci ñoom waa makka ayaatuna a a a kaawteef suñu bayinaat yi aji bir qaala wax alladina ñi nga xam ne kafaru weddi nañ lil xaqi ñeel dëgg a te mooy alquran lamma jaahum ba dikkalee leen haada li sixrun njabar la mubinun ngay aji bidde ñoom nag waa màkk yi eer buñ jàngee ci ñoom alquran wàccee alquran ci ñoom yonent bi jàng alquran indi layu bir wi ñoom dañuy wet dañ naan lii la am bay li yaquluna danañu wax ibtaraaw dun na goo moom alquran muhammad wala ñu ne alquran ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko dul rek dara du ci dëgg de buur ne xul waxal iniftaraytuhu ndem dul na ma ko falaa tamliku na deful jëriñ ci ma lii ñeen ma min allahi fa mbugalam yàlla de shay an dara woo moom aalamu dana mu xam bi ma tufiduna la da xuus fii ci ay waxi caaxaan jëmee ko ci alquran de ah bi ne su fekkee ne man maa ko sos ci sama wàllum bopp kenn mënu maa musal ci mbugalam yàlla waaye alquran ji ci yàlla la jógee de yàlla nag xam na lépp lu ngeen di di ko wax ci alquran wax yi ngeen di wax naan alquran jabar laag alquran woy laag alquran muhammad ko fent loolu yëpp ngeen di wax ci alquran ak nari maami njëkk loolu yëpp moom yonent moom yàlla xam na ko de kafaa doy na bii ci moom yàlla shahidan seede bay nii diggante sama ba bay nakum ak diggante seen de man nag yàlla rek doy na ma seede sama diggante ak yéen huwa te moom alxafuru mooy aji baal ñeel ñi tuub na arrahimu mooy aji yaram leen de xul waxal yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa kuntu nekkuma bidaan di aji njëkk mina rusli ci yonent de man du ne man ma njëkk ñëw ci yonent am na yonent yu ma jiitu woon man ma mujj ñëw ci yonent yi ci ci yàlla yónni de kon lii ma leen wax man njëkkeewu ma ko de uma adri xaw ma maa yufaalu la def na def ko bi la de la def na def ko bii ci man wala bikum du caageen ci yéen de man xaw ma sax lii yàlla di def ci man ak lii yàlla di def ci yéen de xaw ma ndax dañ may génnee comme nañ génne woon yonent yi ma jiitu woon dañ may rey comme nañ reyee yonent yi ma jiitu woon ndax am na yonent yu jiitu yoo xam ne dañ leen rey shahid loo leen ah xaw ma luñ may def de xaw ma ndax yéen dañ leen ni ne jam ay doj ba ngeen dee. Ah, wala dañuy màbbal suuf seen kaw wala dañuy xaaju seen kaw ngeen dee de loolu yëpp xaw ma ko ah, laay jooju nag ba mu wàccee naafeq yu bari dañoo murtadde wa ma adri ma yufalu bi wala bikum naafeq yu bëri dañoo dañoo murtad ndax dañ ne ah yonente bi yàlla boo xam ne moom nee na xamuñ sax luñ koy def xamuñ sax moom moom sax xamul mujjëm mu ko xamul mujjëm nag egg sa moom sax dana deeyaale gëm yàlla wala ragal yàlla ak sa moom kuy texee lay doon wala ku texeaati rek yàlla daal di wàccee laaya de da ko inna fatahna laka fathan mubinan li yaxfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma taaxar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqim de yàlla daal di wàcc rek wàccee laaya na ko déedéet yow ubbil nañ le fathu yow yàlla jéggal na la sa bàkkaar yu mujj yu njëkk yi de moo tax bi sallallahu alayhi de ne xaw ma li li ñuy def ci man ak li ñuy def ci yéen in attabiu déet may topp illa ma yuuxaa na dere def la dere def ne wax yu ko ilayya ci man de man daal du ma topp dara lu dul loo xam ne dañ ma ko wax jëm ci man wa maa ana den man illa nazirun ndere aji waare la aji bidde man daal du ma dara lu dul loo ne yàlla moo ma ko de باقي وهذا دليل أنه لا يبتدئ شيئا كل ما أتاه فوحي من الله تبارك وتعالى لولا هذا الوحي ما عرف شيئا هذا لا ينافي أنه عرف كل شيء mu ne lii mooy tegtal di wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama fentu dara ci wàllu boppam lépp lu mu ci wax yu gi la jugee lépp lu mu ci wax yu gi de bu taxtoon wax yu gi moom du du xam dara waaye mi ne dàq wante woon nag ne yonent yàlla Muhammad yàlla xamal na ko lépp lépp de lépp xam yàlla xamal na ko lépp xul waxal leen ma in kaana nem nekk na alquran min indillaahi tukkee ko fa yàlla wa kafartum te ngeen weddi bii ci moom wa shahidas te te te seede seede min bani israila ci bani israil te mooy abdullah ibn salaam ala mislihi kemam fa amana tam gëm moom wastakbartum te ngeen weddi inna allaha naka yàlla laa yahdi dee bu jubal alqawma nit alzaalimiina ñi di way tooñ de ji su fekkee ne ci yàlla la jugee a ngeen weddi ko waaye ku bokk ci yéen bokk ci bani israil muy abdullah ibnu salaam moom seede na ne alquran ji ci yàlla la jugee de moom seede na ne alquran ji ci yàlla la jugee gëm na alquran gëm na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen reylu de saar wi saaru saaru màkk la waaye aaya bi haadihi aaya nazalat bil madinati aaya bi moom ca madina la wàcce de wa shahida shahidun min bani israila moom aaya boobu madina la wàccee na abdullah ibnu salaam madina la la duggee ci lislaam de yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu gàddaay ba ñëw madina bés bi mu ñëw la abdullah ibnu wax ne booba ci yahudi la bokkoon mu ne xaaral ma dem seeti yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi laaj ko ay laaj bu ko laaj ko kaawteef laaj ko ay laaj bu ko tontoo bu ko tontoo rek ma gëm ko de aa ah, ba mu ñëwee dafa ñëw xool yonent bi rek na ko ashhadu an laa ilaaha illaa wa annaka rasulullah aa ah, ñu ne ko aa ah, yow da waxoon da nga koy laaj ka kaawteef a qulta innaka tatlubu aaya xaala wajhuhu kafaani ayatan haza laysa bi waji kazaabi mu ne di ñu ne ko yow da ngaa waxoon ne koy laaj kaawteef ah mi ne kii xarxaram bi doy na ma kaawteef de xarxaram bi rek doy ma gis du xarxaram fenkat mukk kii ba ma ko gisee moom laa gën a xam sax ci sama doom de ni ma ko xamee xamee wu ma ko sama doom ju góor ndax sama doom xaw ma mu xuruñ na ma jaam déet waaye kii moom na ma ko jàngee woon ba mu ñëwee noonu laa ko fekkee de. Abdullah ibn Salaam nag ba mu duggee ci lislaam dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko yóbbu yi ñu mën a fen lañ ñu mën a fen lañ ñu xañaan soxor lañ waaye dang ma leen di laaj rek man maay kan man maay kan yonent bi Abdullah ibn Salaam ñëw Abdullah ibn Salaam daal di ñëw yonent bi làq ko oo yowoon yéen ñoo mais yonent bi ne waaye yéen kanay Abdullah ibn Salaam ci yéen ñu ne kooku mooy suñ sang di doomi di doomi suñ sang ku gën a dégg tawreet ci ñun mooy kooku oo oh, kooku kooku du sa kem de kooku du sa kem de yonent bi ne leen ndax kooku bu jébbaloo da ngeen jéem ñu ne ko jéem ñu ne ko jébbalu kooku du jébbalu ci yow kooku moo la ëpp maqaama fu kooku du jébbalu ci yow Abdullah ibn Salaam ne tëll génn ne ashhadu an laa ilaaha illa wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah ñu ne moo gën a mën a fen ci ñun mooy doomi ki gàtt fen ci ñun de ñu ne ko gis nga li ma la waxoon rek nii de yow di fen rek la ñuy def de Abdullah ibn Salaam moom nag moom la toog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na bés rek. a toog ca ca bayal ba ñu toog rek Abdullah ibn Salaam yonent bi ne buntu da nit dana génnee ci buntu jumaa ji ci nit yi aljana la bokk de ñu toog rek Salaam ne tëll rek génn fa moo tax Saad ibn Abi Waqaas Abi Waqaas dafay wax maa raaytu maashiyan yamshi ala al ardi wa rasulu yaqulu innahu ahli al jannati ghayra Abdullah ibn Salaam yonent bi Abdulaay Saad ibn Abi Waqaas wax na ne amul kenn kuñ gis kuy dox ci kaw suuf ah, te yonent bi wax na ci aljana la bokk loolu Abdulaay ibn Salaam de bàyyi nee na loolu njëkk muy bégal nag fukk ñi nga xam ne ñoo jëm aljana ah, njëkk mu leen wax loolu loolu Abdulaay mu salaan dañ ko waxoon ne moo tax hadis boobu jiitu waaye yonent bi toog na bés ne aboubacrine aljana la jëm omar ibn alxataab aljana la jëm usmaan ibn affan aljana la jëm ali ibn abi talib talhatu zubayru saadu said abdourahman ibn awfin abi ubaydata ibn jara abdourahman ibn awfin ñoom ñëpp aljana lañ jëm de fukk ñooñu la yonent bi garanti na aljana lañ jëm de abdullah ibn salaam yi eh, ci la bokk de moo tax buur ne wa shahidata seede shahidun aji seede min bani israila mu bokk ci bani israil te mooy abdullah ibnu salaam ak am tagg wu rafet ala ci kemam dafa amana tam gëm wastakbartum te ñu rëylu inna allah naka yàlla laa yahdi du jubal alqawma nit alzalimina ñi di way tooñde wa qaala wa alladina ñi nga xam ne kafaru weddi nañ lilladina ñeel ñi ne amanu gëm nañ law kaana doonte nekkoon na gëm yàlla xayran di yiw maa sabaquna jiituwu leen ñi ilay jëm ci moom de ñoom ñi nga xam ne nag dañoo weddi yàlla gëmuñ yàlla dañoo wax ne ah, ah, ñii gëm yàlla gii ñi ñi ñi ooyee su fekkoon lu baax la kon ñoom du ñu ci jiitu de ñoom du ñu ci jiitu ah, ndaxte gëm lislaam boo xam ne ay daggkati dàll ay uude ay jaam rek ñoo ci dugg ñun ñooy borom xaalis di borom daraja yi duggul ci sax bu nekkoon yiw kay xam nga ne ñu bon ñii ñu doy di ni ñu njëkk ci teraanga gi lu baax rek du ñu ci njëkk dégg buur ne wa wa in lam yahtadu wa in lam ya ndem jubuñu sax ñoom way wax ñi bii ci alquran fa yaquluuna xal nañoo waa fa sa yaquluuna xal nañoo waa haada li ifkun nar la mu dur la qadimun ngay aji jiitu de loolu mooy aada ñi nga xam ñoo fetterlu ñoom daal gannaaw dugguñ ci rek ah gannaaw dugguñ ci bokkuñ ci yàlla dugalul leen ci rek ña ngay yàq rek ña ngay yàq ña ngay yàq rek ah ni mu amee ci jamono yonent bi sallallahu wa sallam noonu lay diri sembaanam ba ci jamonoy tey de ba ci jamonoy tey waaye nag alxuraan ji mooy yiw de alxuraan ji moo yiw ndax ñoom lañ teg yiw ñoom duhut yiw ndax ñoom dañoo jàpp ne nit ki dafa war a am alal am daraja am askan am nangam ci ñoom seen gëm-gëm yéen gëmoon kon ñoom su fekkoon ne ñoom ñoo duggoon ci lislaam njëkk dugg ci lislaam kon daneen xam ne ñoom lislaam ñoom eh, ñoom yiw la ci ñoom waaye dañoo gis ne lislaam ba mu ootee ay uuteeg ay sàmmkat ay jaam ñoom ñoo ci njëkk dugg de ña duggoon am askan am daraja mooy Seydina Babacar Siddiq radiyallahu anhu ak Usmaan ibn Affan Seydina Omar ibn Xataab ci jamono jooju de waaye ku mel ni Bilal Ammar ak Suhaybu ak ak ñëpp ay jaam lañ woon nangam ak nangam ñi moom leen Abdullah ibn Maktum ñooñu ay sammu lañu woon na nangam ak nangam Abdullah ibn Mas'ud loolu yëpp ni gis ne daal ñii gannaaw ñu doye di ñi ñoo ci dugg ñoom seen gis-gis ñu ne lii daal nekkut yiw de bu nekkoon yiw xam nga ne Abu Jahl kenn du ko ci njëkk Utbatu kenn du ko ci njëkk Shaybatu kenn du ko ci njëkk ñin waaye kenn duñu ci de waaye ñoom ñoo réer de yàlla moon na mut ci ñoom jub rek de buur ne donte jubuñ sax ñoom deneen wax ne alquran ji nar la de waaye nag pencam yàlla deneen xam ndaa alquran nar la wala du nar de wa min qablihi aji nekk la ci njëkk alquran kitaabu Muusa téere Muusa te mooy tawreet imaaman muy raytee wa rahmatan kay yërmaande ñeel woy gëm ña njëkk alquran tawreet tawreet moo moo jiitu alquran de te tawreet moom dëggal na ne ki alquran jii ci yàlla la jugee de ndax ñoom yéeféer yi dem nañ laaj waa tawreet ne leen ndax alquran jii tawreet tuddoon na ko ñu ne waaw waaye gis nga rek fettalu nañ bañ de waa haza ji la alquran kitaabun téere la musaddiqun muy aji dëggal ñeel téere yi ko jiitu woon lisaanan mu di luga ak arabiyan ngay kajoog yaaram de li tundira ngir nga ragal wa alladina ñi nga xam ne zalamu tooñ nañ mooy way ñi ñi bokkaale ca makk wa bushra bégalal lil muhsinina ñeel way yéwé nañu de inna alladina naka ñi nga xam ne qaalu wax nañ rabbuna borom suñu laaw yàlla summa staqaamu topp ñu jub ci topp yàlla wala xawfun dee tag ragal alayhim ci ñoom wala hum dem ñoom yaxzanuuna ñuy jàq ulaayika ñooñu la gaay asxaabul jannati ñooy waroom yi aljana de xaalidiina way béel lañ fi yaa ci jooju la aljana jazaan mu dig fay bi ma kaanu ca lañ nekkoon yaamaluuna doon jëf de ñi nga xam ne nag gëm nañ yàlla gëm nañ yàlla wax ne yàlla mooy suñ borom ñu jub ñooñu duñ ragal ci addi duñ ragal ci àddina duñ jàq ëllëg ci àllaaxira de te ñooñu yàlla ëllëg dana leen jëmee ñoom ñëpp aljana de wa wasaynaa ñun de al insaana doomu aadama al insaana nit bi waaliday ci ñaari waajuram xusnan ak rafetal jëmee ci ñoom ñaar de yàlla nag dénk doomu aadama nit kii mu rafetal jëm ci ñaari waajuram muy ndeyam ak baayam dénk na leen ko de xamalatu xamu na ko ummuhu ndeyam kar an cib coono wa wadaatu wasin na kar an cib de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yàlla dénk na nit pour mu rafetal jëm ci ñaari waajuram ndax ndeyam moom moo ko ëmb jànkuwanteeg coono ëmb jàntu jànkuwanteeg it coono wasinde ëmb ba mënoon na cee dee wasinde mënoon na cee dee moom moo jànkuwanteeg coono boobu waaye boo juddoo boo juddoo it sa waajur moom moo gàddu sa dund moo gàddu sa ordonnance moo gàddu sa lépp de moo gàddu sa dund moo gàddu sa dund ak ndey kon moo tax nga rafetal jëm ci ñoom waaye ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sama ñaari waajur kan moo ca faax mi ne ko sa ndey mi ne ko ak kan mi ne ko sa ndey mi ne ko ak kan mi ne ko ak sa baay kon xaaj ne mbir mi ñetti yëf ñaari jox na ko yaay ji benn bi mu jox ko góor gi de ah, benn benn benn góor Ah, ah, benn waay mas naa xulóog ndeyam ah, waay ji di di di defal di defal yaayam rek di defal yaayam baay ji daal di ko kaas ne ko yow sa ndey rek ngay defal man daal duma defal dara ah ndey ji ne ko man maa ko ëmb man maa ko ëmb juróom-ñeenti weer man maa ko wasin te ba ma koy ëmb ëmb ba mënoon naa cee dee wasin la mënoon naa koo dee góor gi na ko waaw man maa góor gi moo njëkk wax ndaw si na ko man maa ko ëmb góor gi na ko maa la ko njëkk ëmb foofu ndax ëmb naa ko sama ndigg di dox ak moom ayaat mi na ko ndaw si na ko maa wasin góor gi na ko man maa ko njëkk wasin ndax man maa génnee ma niw ci man ma jox la ko kon maa la ko njëkk wasin mi na ko man bu ma ko ëmbee tuuti kon ma dee ba ma koy wasin tuuti kon ma dee de yow nag ba nga wasin dafa neexoon ci yow de dafa neexoon ci yow moo tax waajur ndey moo ëpp xàq ci waajuram de ndaxte sa ndey ëmb na la ci coona wasin coona de buur ne wa xamluhu hëmbum hëmb wa fisaaluhu ak nàmpal salaatuna shahran ñett fukki weer la de mooy fanweeri weer mooy fanweeri weer de ëmb ak ferga fanweeri weer la diirab ëmb ak diirab nàmpal alxuraan yaxal na ne fanweeri weer la de wax na ca weneen saar newal waalidaatu yurdina awlaadahunna xawlayni kaamilayni xawlayni kaamilayni mooy ñaari at ñaari at ñaata weer la ñaar fukki weer la ak ñeent ñaar fukki weer ak ñeent mooy mooy ñaari at ndax at mu nekk fukki weer ak ñaar la ñaari ñaar fukki weer ak ñeent boo ci dollee juróom benn weer ñaata la lay jox fanweeri weer moom la lay jox kon diggante ëmb ak ak ferga ñaar fukki fanweeri weer la de fanweeri weer la kon gën ja néew ci lëmut ci ëmb jigéen mooy juróom benn weer de jigéen ëmbam bi gën a gàtt mooy juróom benn weer juróom benn weer jigéen mën na cee wasin doom de daneen ko leeral daneen leen indilaat laat daneen leen indil dars boo xam ne tey ci doomu aadama pour yàlla ni mu sonnee ci mbindeef bi ak ni mu ko bindee de jigéen ju nekk ruum jigéen bu nekk yàlla mi ngi fa wakiil benn malaaka moom foofu rek lay nekk waxtu mu nekk rek malaaka yi mi ngi naan yaa rabbi nutfatan yaa rabbi nutfatan yaa rabbi nutfatan yow yàlla may ma toqant yàlla may ma toqant yàlla bu ko ko nammee may nangu ñaanam dafay rafetal ca guddi googu góor ga jigéen ja jigéen ji mu rafetal ko ci ci góor ga góor ga yi mu rafetal ko ci jigéen ja bu leen rafetalee ci guddi gi bu ñu àndee sëy ba ma niiw mi wàcc fekk ma niiw boobu yàlla namm na ci doom malaaka bi daf koy téye ci loxo ne ko yàlla ndax lii dañ ci bind doom doo ci bind doom mais dinaa ko ci bind góor wala jigéen moo xool lépp li muy def mu jël loolu yëpp comme niñ ko jàngee woon dugal ko niw nag góor am na ñaari palaas yoo xam ne fa lay ma niw di génnee muy ndeyjoor ak càmmooy jigéen it am na ñaari place yoo xam ne fa lay ma niw di duggee ndeyjoor ak càmmooy góor buy sëyeeg jigéen mëniw bi su fekkee ci wàllu ndeyjoor la génnee jëm ci ndeyjoor ak jigéen ji ci payam ci ndeyjoor doom jooju bu juddoo góor lay doon góor gu mag ak góoram lay doon bu fekkee ne mëniw bi ci ndeyjoor ci càmmooy góor gi la génnee dugg ci càmmooy jigéen ji jigéen gu mat jigéen lay doon bu juddoo rek da nga xam ne kii jigéen la ma nii bi nag bu génnee ci ca ci ndeyjoori góor gi waroon a duggee ci ndeyjoori jigéen dem duggee ci càmmooy jigéen ji booba góor lay doon waaye góor gi day saf jigéen góor lay doon waaye góor gi day saf jigéen moo tax ngay gis léeg-léeg góor goo xam ne dafay xaw a saf jigéen te loolu moo ko waral bu fekkee ne ma niiw bi ci càmmooy yi góor gi la génnee duggee ci ndeyjoori jigéen ja booba jigéen lay doon waaye day sab góor foo ko gis rek da nga naan góor yi ngay def nag loolu moo ko waral de jigéen nag bu ëmbee du gis règle du gis règle lu ko waral mooy deret jooju mu daan génnee pour def ko pour mu nekk règle yàlla daf koy soppi def ko meew moom la koy def buy xale bi di judd rek mu jox ko ne ko nàmp ko moo tax doomu aadama buy judd cëram yëpp dana juddu cër yëpp lay ànd ak doomu aadama buy juddu cër yëpp dana ñëw loxo tànk bakkan bët tànk biir lépp dana ñëw benn rek la doomu aadama du ànd di di di di bañ a ànd boobu mooy ban bàyyi mi ne boobu mooy bëñ bëñ moom du ànd ak moom mukk ndaxte doomu aadama bu juddoo ah, war a lekk moom mooy namp ci weeni ndeyam yi te fekkoon ne yàlla daf koo defal bëñ kon boobaa du mën a nàmp yaayam du ko mën a nàmpal de ndax waxtu ne da koy mat jigéen sax ñaar bu ko doomam commencé mat mi ne ah kii nag nañ nag moo tax doomu aadama bu juddoo moo tax fekk na yàlla préparé na ko meew mi muy naan ba pare moo tax buy juddu ba rot rek buy yaayam di ko jox weenam bi buy nàmp rek meew génne de fekk yàlla préparé na ko bu yàgg doomu aadama nag mi ngi noonu yàlla góor geeg jigéen ji buñ sëyee ba mën niyu bi dugg ci ruum jigéen ji mën niyu boobu bu fa amee juróom benn fan nga boole koo bés bi nga xam ne ci la mën niyu bi dugg dafay nekk juróom-ñaari fan juróom-ñaari fan yooyu boo xoolee mën niyu bi ba duggoon dafay mel ni que zubdatin baada sittati ayaamin min yowmi duxuli rahim aada kiyaari sabatu ayaam su fekkee ne dugg na ba am juróom-ñaari fen moom mëni wi ci ak jigéen ji boo xoolee ci juróom-ñaari fen boo xoolee jëm ci mëni da ngay fekk mu mel ni am dax day forme boo xoolee te ida nazarta fil mëni yaxdatu fii nuqatun salaasa nuqtatun nuqtatul xamra fawqahu nuqtatul xamra fi wastihi wa nuqtatul xamra fi l jaanibil ayman ak nuqtatul xamra fawqa ستسير هي الدماء والحمراء وسط المني ستسير هي هي القلب والتي بالجانب ستسير هي الكبد noonu lay mel boo xoolee jëm ci menu bi nag danga ko fekk ñetti tong yu xonq benn tomb bi benn tomb bu xonq bi ci kaw lay nekk benn tomb bu xonq bi ci digg bi lay nekk benn tomb bu xonq bi ci wàll ndeyjoor lay nekk benn tomb bu xonq bi nekk ci kaw moom mooy nekk yuur ak bopp gi yuur gi foofu la ko yàlla di formé beneen tomb bi nekk ci digg bi moom mooy nekk xol bi beneen tomb bu nekk ci wàllu ndeyjoor moom moo nekk mooy nekk res de buñ ci tegee yeneen juróom-ñaari fan da ngay gis tomb yooyu nga xam ne ñetti tomb yooyu bu nekk dana daw fekk sa morom buñ ci tegee ñetti fan muy fukki fan rek lépp nekk deret lépp day nekk deret de nekk benn deret nekk daal di nekk mi ne euh, nekk lumbu buñ ci tegee juróom-ñaari fan yàlla def ko nag mu commencé di nekk yàpp yàpp buy xaw a dëgër mu ngay génnee cër ya nag mu ngay génnee cër ya fa bopp ba war a génn fa tànk ya war a génn fa loxo ya war a génn fa biir ba war a génn fa bët ya war a génn loolu yëpp dana ko daggte ay daggte ci biir euh, ci biir suux woowu moo tax bu fekkee ne doomu aadama wa iza tamma jam'ul janini wa taqdiru fi muddati salaasina yawman aw fi muddati xamsata wa salaasin aw fi arbain aw fi xamsata wa arbain ala maa yajri su fekkee ne nag bind doomu aadama lëmut ja mat na ci fanweeri fan ci la mat ci la mat fanweeri fan boo ci dollee yeneen fanweeri fan ñaata la lay jox ñaari weer la lay jox nga dolliwaat yeneen ñaari weer ñaata weer la ñeenti weer la lay jox ñeenti weer yooyu nag bu jotee ci lañ koy defal ci lañ ci def ñeenti weer yooyu nag buñ ci dolliwaatee yeneen ñaari weer moo lay jox juróom benn weer loolu mooy sabab doom di juddu ci juróom benn weer de bu fekkee nag la mujje ma nga mat ci fanweeri guddi ak juróom ci la soog a mat ci la bind mi soog a ci la ko yàlla génnee fanweeri guddi ak juróom boo ci dollee fanweeri guddi ak juróom fanweeri bés ak juróom ñaata la lay jox da lay jox ñaari weer ak fukki guddi ak fukki fan de ñaari weer ak fukki fan boo ci dollee yeneen ñaari weer ak fukki fan lum lay jox mi ngi lay jox mi ngi lay jox mi ngi lay jox ñeenti weer ak ñaar fukki fan mi hmm? lay jox ñeenti weer ak ñaar fukki fan ñeenti weer ak ñaar fukki fan boo ci dollee benn weer ak fukki fan lu mu lay jox juróom benn hmm. bu fekkee la muti mi ngi mat ci fukki fanweeri fan ak juróom ci la mat yàlla dolliwaat ci yeneen fanweeri fan ak juróom loolu dafay nekk ñaari weer ak fukki fan ñaari weer ak fukki fan ñi dolli ci ñi dolli ci ñeenti weer ak ñaar loolu ñaata la juróom ñaari weer la lay jox ñaari weer ak fukki fan boo ci dollee ñeenti weer ak fukki fan ak ñaar fukki fan daf lay jox juróom-ñaari weer loolu moo tax doom di juddu ci juróom-ñaari weer de fa lihaada yuladu alwaladu aydan fi sabati aya fi sabati ashhurin su fekkee la mujje ci ñaar fukki fan ak ci fanweeri fan ak ñett la mat su fekkee la mujje nag mi ngi mat bind ba mi ngi mat ci ñeen fukki fan ci la mat ñeen fukki fan boo ci doolee ñeen fukki fan ñaat la lay jox juróom-ñett fukk juróom-ñett fukki fan mooy weer ak ñaar fukki fan weer ak ñaar fukki fan boo ci dollee yeneen ñaari ñaari weer ak ñaar fukki fan la lay jox ñaari weer ak ñaar fukki fan boo ci dollee ñaari weer ah, ak fukki fan lu mu lay jox daf lay jox juróomi weer moom la lay jox juróomi weer boo ci tegaatee ñetti weer lu mu lay jox mooy juróom-ñetti weer de loolu moo tax doom léeg-léeg muy judd ci juróom-ñetti weer waaye bu juddoo ci juróom-ñetti weer du dund de su fekkee ne la mujj nag matul wa ida lam yatim ijtimaaul janin illa baada xamsata wa arbaina yowman su fekkee la mujj nag ma nga mat ci ñeen fukki fan ñeen fukki fan boo ci doolee ñeent ñeen fukki fan ak juróom ci la mat ñeen fukki fan ak juróom boo ci doolee ñeen fukki fan juróom loolu ñaata fan la juróom ñeen fukki fan la juróom ñeen fukki fan ñetti weer la ñetti weer boo ci doolee juróom benn weer ñaata la juróom ñeenti weer moo tax jigéen léegi-léegi muy muy jur doom ci juróom-ñeenti weer de ah ndax la mujj rek la topp su fekkee comme ni ma ko waxee la mujj su fekkee ci fanweeri guddi la mat doom jooju mën naa judd ci juróom weer su fekkee ci fanweeri guddeeg juróom ci la mat doom jooju mën naa ci juróom-ñaari weer su fekkee ci ñeent fukki guddi ci la mat doom jooju mën naa judd ci juróom-ñetti weer waaye dafay dee su fekkee ne Eh, eh, juróom eh, ñeent fukki fan ak juróom ci la mat su boobaa mën naa juddu ci juróom-ñeenti weer de loolu nag moo ëpp li jigéen ñi di jur mooy juróom-ñeenti weer doom nag bu juddoo ci juróom-benn weer man naa dund ndaxte alxuraan lim yaxal mooy def ne diirab ëmb jigéen mën naa nekk juróom-benn weer ku ko xamul nag jigéen mën naa ëmb juróom-benn weer rek nga ñëw ne dafa njaalo kii de laata jëkkëram di ko takk sëy nañ ba pare fekk loolu réer la alquran moo ne wa hamluhu wa fisaaluhu salaasuna shahran hëmbu ga ak fenal ga yépp fanweeri weer la de jigéen nag mën naa ambu ci juróom benn weer wasin doomam de nit ñëw na ci jamono Seydina Omar benn jigéen boo xam ne dafa ëmb doomam juróom benn weer am doom Seydina Omar ne kii dafa njaaloo dañ koy jëm doj ba mu dee Seydina Aliou daal ñëw de na ko déedéet laa rajma laa rajma kii doo ko jëm mi ne ko déedéet dama ko jëm ndax dafa njaaloo juróom benn weer ci la am doom de Seydina Aliou ne ko jëm ndax yàlla wax na wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni hawlayni mooy ñaar fukki weer ak ñeent te wax na ne wa hamluhu wa fisaaluhu salaatuna shahran xëmb ga ak nàmp ak ak ak feral ga yépp fanweeri weer la kon ñaar fukki weer ak ñeent boo ci doolee juróom benn weer ñaati weer la mi ne ko fanweeri weer ba mu ko waxee loolu rek Omar daal di wàcc de ne laa istu fi qarnin laysa fii abul hasan de yàlla yàlla bu ma dund ci maas goo xam ne Seydina Ali ibn Abi Taalib nekkut fa de kon jigéen dana dund dana juddu dana jur doom ci juróom benn weer dana ci jur jigéen ju am doom ci juróom benn weer rek loolu lu mën a nekk la de lu mën a nekk la ndax alquran moo koy xaar waaye ku dof jaayil xamul dara jabaram wala jabari jàmbur am doom ci juróom benn weer ña xamul dara dañ naan xëy kii de ku dem waa ji daf ko dafa seeg moom ba pare ba mu ëmb rek mu bëgg na mu ëmb mu takk ko ci biir ëmb bi fekk jigéen mën naa am doom ci juróom benn weer ndax alquran moo koy xaar Euh, moo tax gën a néew lu gën a néew ci lëmbut mooy juróom benn weer lu gën a mag nag alxuraan yaxalut ko wax nañ ne nit mën naa ëmb doomam at nit mën naa ëmb ñetti at ndax imaam Malik yaayam ñetti at la ko ëmb imaam Malik yaayam ñetti at moom la ko ëmb de ci biir ndeyam nit judd na am juróom ñeenti at de ba mu juddoo dafa bejjaaw saxal ay bëñ de moo tax boroom xam-xam yi ñoom ñoom amaluñ ko fuñ ko emal de ñoom dañ ne daal nit mën naa ëmb sax fukki ak soog a jur doom de kon moo tax euh, kon doomu aadama ngoo doomu aadama nag lu tax bu juddoo ci juróom ci juróom benn weer mu mën a dund mu dund ndax booba àgg na foo xam ne mën na faa jur bu fa juree rek doom jooju mën naa judd mën naa dund su fekkee juróom ñaari weer la doom ji mën naa mën naa juddu de waaye juróom-ñetti weer bi lu tax doom ji ñaareel mu ciy dee mooy booba dafa romb ñaari état yoo xam ne waroon na cee génn juróom-ñetti juróom weer bi moom doom ji dafay force pour bëgg génn moo tax euh, bu demee foofu fa yajziba lil xuruji muddata shahri yu yuhaawilu an yaxruja fa ida xaraja fi shahri saabii xaraja saaliman ibnu sabaati ashhurin la baas fihi bihi fa ida mada zalika shahra وهو كابد الخروج شهرا كاملا ولم يخرج بقى ضعيفا عليلا فإذا خرج في الشهر الثامن يموت غالبا juróom ñetti weer bi moom boobaa passé na ñetti ñaar yu mu waroon a génn waroon naa génn ci juróom benneeli weer bi su fekkee matoon na waroon naa génn ci juróom ñaari weer fekkee matoon na bu demee ba ci juróom weer bi nag fekk mat na ah te te mënta génn muy buux di génn di buux di génn di sonn lool loolu dafay waral bu génnee ci juróom ñetti weer bi rek. dafay lottu dafay feebar loolu moo tax bu juddu jigéen bu amee doom ci juróom-ñetti weer rek doom ji dafay delluwaat de waaye bu juddoo ci juróom benn bu fekkee ci juróom benn weer la ko mat gi dikkal mën naa mucc mën naa dund fekkee juróom-ñaari weer mën naa dund mën naa mucc fekkee juróom weer li ëpp ci jigéen juróom-ñeenti weer la ñu jur de doomu aadama nag bu juddoo ba am juróom-ñaari at ba am juróom-ñaari at yàlla dafay soppi bindam te baddalat xilqatu ah yàlla dafay soppi bindam yàlla dafa jaaree doomu aadama ci juróom-ñaar par juróom-ñaar doomu aadama bu juddoo ba am juróom-ñaari at yàlla dafay soppi bindam der bi mu amoon yàlla dafa koy changé defal ko beneen der bu xaw a dëgër tuuti ah, cëram yi nga xam ne dañoo néewoon dëgëruñ yàlla daf ko koy changé defal ko ko cër yu dëgër. ci juróom-ñaari at bëñ yi nga xam ne moom la judduwaale woon moom la amoon yàlla defal ko ko bëñ yooyu yàlla daf koy dindi defalaat ko yeneen bëñ yu dëgër bëñ yooyu mu koy mujje defal nag yooyu day ànd ak moom ba dee yàlla daal di ko defal xel moo xam ne dafay dëgëral xelam xel moo xam ne dana jàpp nit ñi mën koo dugal daara mu mën a jàng moo tax nit bu duggee bu nekkee juróom-ñaari at rek war nañ koo dugal daara mu jàng buñ ci tegaatee yeneen juróom su boobaa mu am ñaata ak fukki at ak ñeent baatam su fekkee góor la yàlla dafay tatal baat bi dafay baat bi dafay dafay am doole nga gis porox gi daal di yëkkatiku ci fekkee góor la de ak xeti poqataanam daal di commencé changé muy xasaw yàlla sax mu commencé yàlla saxal ko ak karawi poqataan ak karawi naq foofu la ko koy saxalee su fekkee jigéen la nag foofu lay commencé gis mbaax de yàlla bind ko dafal ko dafal leen loolu bu ci tegee yeneen juróom-ñaari at muy ñaar fukki ak benn booba yàlla jox ko taar nag taar bu rafet su fekkee góor la nag yàlla jox na ko taar bu rafet fekkee jigéen la yàlla saxal ay wenam def ko weni mu taxaw su boobaa nag yàlla dafay dolli xelam mi xel mi yàlla dolli ko saxalal ko sikkiñ booba nag ci lay commencé nag di wantaaram jigéen ñi jigéen ji it mi ngi wantaaram góor ñi de ndax booba ñoom ñaar ñépp mat nañ wa wa quwiyat shahwatu wa arrafa maqasid al oqala booba xel mi mat na fekkee góor la si sikkiñ baa ngi commencé génn fekkee jigéen la ñoom ñépp ah, seen taar génn na mat na de bu ci tegaatee yeneen juróom-ñaari at mu nekk ñaar fukki at ak juróom-ñett su boobaa nag mat na sëkk su fekkee góor la mat na sëkk ak góoram su fekkee jigéen la mat na sëkk ak jigéenam mat nañ sëkk de boo ci dollaatee yeneen juróom-ñaari at mu nekk fanweeri at ak juróom boobaa nag jot na dayoom nag ci mat am na ñoo xam ne bu ñu amee fanweeri at ak juróom rek foofu la ñuy euh, foofu la ñuy foofu la ñuy nekkee foofu lañuy jotee seen mat dëgg dëgg dëgg dëgg su fekkee nag yéex naa jot magam ma ak dëgëram yàlla daf koy yóbbu ba ju ba ñeent fukki at moo tax bu ci tegaatee yeneen juróom-ñaari at dafay nekk ñeent fukki at ak ñaar boobu mat na sëkk nag nit bu amee ñeent fukki at bu mat sëkk booba dara dootu dolleeku ci moom lépp mën na tamma aqluhu wa quwwatuhu wa intaha mumuuhu la yazdaadu baadu bal yasiru fi intixaasin xafiyan illa fi maanan aqluhu wa quwwatuhu wa iqbaalu ala allahi fi haadi sinni in araada allahu bihi xayran walakin jismuhu yantaqisu min hadihi lmuddati quwatun nafsaniyatun tantaqisu shay'an fa shay'an rubbama alaahu shayba walakin quwatu lilahiya tasdaadu lihada ma baasa allahu nabiyan illa ala rasi arbaina sana illa qalilan nadiran bàyyi mi ne nag kooku nag nit bu dundee ba am ñeent fukki at nag booba xel mi mat na sëkk dooleem mat na sëkk dara dootu dolleeku ci moom ci kattan dara dootu dolleeku ci moom de bu demee nag ba àgg foofu nag ba yokk benn at rek da ngay gis nag muy commencé wàññeeku mi ngi wàññeeku waaye wàññeeku bu ndaw lay yàlla di wàññi kattanam du ko yëg nag bu koy wàññi doo ko yëg da ngay jàpp ne yaa ngi am kattan rek fekk boo demee ba am ñeent fukki at rek ba am ñeent fukki at ak benn yàlla ngi lay wàññi sa kattan de sa doole mi ngi wàññeeku sa kattan mi ngi wàññeeku noonu la koy wàññee waaye nag xel ma. xel ma moom day gën a yokku doole xel mi day gën a yokku su fekkee julli la ku gëm yàlla la jublu gim jublu yàlla dafay gën a yokku su fekkee yàlla namm na ci moom yiw waaye jëmmu ji moom doolee jëmmu ji ak yax yaag yëpp mi ngi wàññeeku nànk nànk nànk nànk de waaye xóotul ilaahiya tes daadu de bëggee gim bëgg yàlla moom kattan ak yi nga xam ne dafay doole bëgg mbëggee dem ci yàlla loolu dafay gën a yokk du wàññeeku mukk de loolu moo tax yàlla yónniwul benn yónnantu lu dul gannaaw ba amee ñeent fukki at la ko yónnee ndax boobu mën na sëkk lu dul ñu néew ci ñoom ni ko yonentu yàlla Isa moom fu mu tuddoo la ko yàlla yónnee ak Yaxya ak Yusufa waaye yeneen yonentu yépp bañ amee ñeent fukki at la yàlla yónni kon doomu aadama ngoog jaar ak moom ci bind boobu la yàlla jaar ak doomu aadama de ñeent fukki at ak ñaar boo ci tegee nag ñeent fukki boo ci tegee yeneen juróom-ñaari dafay nekk ñeent fukki at ak juróom-ñeent boobu nag waa ji su fekkee na bëgg na yàlla foofu mbëggeelam ci yàlla dafay gën a dolleeku dafay gën a bëgg de bu ci tegaatee yeneen juróom mu nekk juróom ak juróom hmm? juróom-benn ak juróom moom lay nekk foofu nag lu waay sàggan sàggan sàggan war naa dellu ci boromam de bu ci tegee yeneen juróom-ñaari at mu nekk juróom-benn fukki at ak ñett. Ah, ah, xamal ne dee nag yëngatu na ci yow foofu la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa yem de foofu la yem juróom-benn fukki at yem daal di génn àddina moo tax mi ne amaaru ummati mi ngi dalee ci juróom-benn ñaar fukki at de nit bu dundee ba am juróom-benn fukki at lum dof dof dof dof dof dof na xam ne dee yëngatu na ci moom bu ko xamee ak bu ko xamul yëpp dee yëngatu na ci moom de yàlla nañ yàgg. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ida balaga rajulu muslimu arbaina sanata amanahu llahu min anwaa'i lbalaya min aljunuuni walbarasi waljuzaami wa ida balaga xamsiina layana allahu azza wa jalla alayhi xisaabuhu wa ida balaga sittiina razaqahu llahu inaabatan yuhibbuhu alayha wa ida balaga sab'iina ahabbahu llahu wa ahabbahu ahlu ssamaa'i wa iza balaga samanina taqabbala allahu minhu xasanaatihi wa maxa anu sayiaatihi wa iza balaga tisina gafara allahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma taaxara wa summiya asira allahi fi l ardi wa shufia fi ahlihi de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na nit nag bu dundee ba am ñeent fukki at su fekkee jullit la bu amee ñeent fukki at yàlla dana ko musal ci xeeti balaa yi musiba yi yàlla dana ko ci musal su fekkee dalu ko woon ba mu am ñeent fukki at yii moom mucc na ci du ci dal mukk mooy dootul dofati dootul am feebari baras dootul am feebari ngaana nit bu juddoo dundee am ñeent fukki at yàlla musal na ko ci ñetti feebar yooyu dootul dofati dootul am feebaru baras dootul am feebaru ngaana de nit bu dundee ba am juróom fukki at yàlla daf koy nooyalal daf koy nooyalal xisaabam nit bu dundee ba am juróom benn fukki at yàlla daf koy wërsëgalal mu dellu ci moom de nit bu dundee ba am juróom-ñaar fukki at yàlla daf koy bëgg ñooñ yàlla asamaan dañ koy bëgg nit bu dundee ba am juróom-ñett yàlla dana nangu mbooleem ay baax baax yi mu defoon jéggal ko mbooleem ay ñaawteefam de nit bu dundee ba am juróom-ñeent fukki at yàlla dana ko baal mbooleem bàkkaaram yi jiitu woon ak yu mujj woon de ah nit euh, booba nag lañ koy tuddee nekk yi jarjare yàlla la ci suuf maanaam ku yàlla bala daal kii yàlla ba na ko toppatuñ ko dara de wa shufia fi ahlihi te yàlla daf koy ràmmaloo eh, ci néeg ndeyam ak ci néeg baayam ñoo xam ne ñoom ñëpp moo leen yóbbu aljana de yàlla nañu yàlla may dundoo ak yooyu ah kon nag doomu aadama ngoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man shaaba shaybata fi lislaami kaana lahu nuuran yowm alxiyaamati de yonent yàlla ibrahim moom la yàlla moom la yàlla njëkk defal lii yonent yàlla Ibrahima moo njëkk gane la gan yonent yàlla Ibrahima moo njëkk duggal boppam néegu góor ba mu demee ba am juróom ñett fukki at yàlla dox ko ndigal na ko xarafalaan sa bopp mu jël rek dagg boppam de moo ko njëkk def moom yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Ibrahima moo njëkk bejjaaw bi mu xëyee gis karawam gi soppeeku daal di weex xëy rek gis ko mi ne yaa rabbi maa haada yaa rabbi maa haada buddilat xilxat yi yàlla lii lan la ah soppi sama bind lii yàlla ne ko haada waqaarun yaa Ibrahima wa nuuran wa nuurun ne ko Ibrahima loolu wegeel la ak leer de mi ne yaa rabbi zidni waqaaran wa nuuran yaa rabbi zidni waqaaran wa nuuran yow yàlla dolli ma wax wegeel ak leer de moo tax nit bu bëggee jaay rek da nga koy am doo ko a wax de moo tax yonent bi ne man shaaba shaybata fi lislaami kaana lahu nuuran yawmal xiyaamati képp koo xam ne dund na ci lislaam ba bejjaaw yàlla dana def. yàlla dana def bépp bejjaaw rek yàlla dana ko def muy leer ca pencam yàlla de na nag nga xam ne moom la yàlla jaareel fo atta iza balaga topp bam jot ashudduhu dëlëm wa balaga tam jot ak arbaina ñeent sana tam ci at xaala mu rabbi yow sama borom awzi'ni yankawal ma an ashkura ba ma sant ni'mataka xéewal sa de allati xéewal ga nga xam ne an am ca teewal nga alayya fa man wa ala walidayya ak sama ñaari waajur ah, wa an amala ban jëf saali an jëf jiwu tar daaw boobu nga ko gërëm de wa aslih yàlla nga yéwénal lii ñeen ma fi zuriyati samay doom inni naka man tubtu tuub naa ilayka jëm ci yow way nii naka man minal muslimina aji bokk laa ci way jébbul ñi de ñaan googu nag ñi ne ci seydina aboubacar la wàcc de bi nga xamee ne ah, ah, dund na ci lislaam ba am ñeent fukki at moom aboubacar siddiq mu ñaan yàlla ne yow yàlla a a ñeent fukki at ak ñaar ci lislaam mu ñaan yàlla ne yow yàlla yow mi nga xam ne yaa ma yank wal jub jox ma xéewal maa ngi ñaan nga def ko ci sama ñaari waajur yàlla ñi xiir ñi jëf-jëf joo xam ne jëf ju baax la de te maa lay ñaan sama doom yépp aboubacar moom la yàlla may ci mboole muhaajiri moom ak zeyd ibnu harisata ñoom rek ci muhaajiri ne ñoo am néegam seen néeg yépp nekk sahaaba yonent aboubacar saxaaba la saxaaba yonantu la baayam abi abi quafata saxaaba yonantu la ndeyam umul xayri saxaaba yonantu la doomam abdourahman saxaaba yonantu la mouhamad ibnu abi ibnu abdourahman saxaaba yonantu la la ñeent ngoog ñoo xam ne ñoom ñëpp dañoo toflaantoo nekk saxaaba yonantu mouhamad ibnu abdourahman ibnu aboubacar ibnu abi quafata de ak zeyd ibnu xaarisata moom yàlla may na ko loolu de moom zeydi saxaaba yonantu la xaarisata baayam saxaaba yonantu la usaamata doomam sahaaba yonent la muhammad ibnu usaamata sahaaba yonent la de ñeent ñoo xam ne ñëpp sahaaba yonent la muhammad ibnu usaamata ibnu zeyd ibnu harisata ñoo ñëpp ay sahaaba yonent ñoom ñoo doon ñaan ñaan yi de mooy ñi nga xam ne ulaayika ñoo ñela ñi nga xam ne def na nangu ak anum ci ñoom ahsanu ma amilu gën ja rafet ci lañ doon jëfoon wooyu te ja wooyu def na jéggil leen def na baal leen an sa yaatim seen ñaawteef de fii ashaabil jannati aji bokk lañ ci ñooñ aljana de loolu nag wax da sidqin dëhëlëb dëggu la allazi ba nga xam ne kaanu nekkoon nañ yu aduna doon ko dëhël de allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim allahumma salli ala sayyidil awwalin wal akhirin yàlla mu nga tàmbali baag si yàlla ko àggale jàmm te bañ cee def ndog yaara bi yàlla mu ko xam dëgg-dëgg yàlla ñu ko xamal barke alxuraan yàlla ka ko wasal ak kiñ ko wasal ci moom ak li tax ñu wasal ko ci moom yaare barke dina islam barke tariqa Cheikh Ahmad Tidiane barke maam alxaaji Abdoulaye barke Baye allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa anhu la ilaha illa anta